Dakar nouvellement nommé euh, ñetti weer la fi defagum moo taxoon mu ne dafa bëgg jéego mu njëkk Sénégal mu tàmbale ko ci dem ci kër diine yi loolu moo ko indi woon tey fii ci dëkk bi ci Touba. mu ñëw fi ziar si Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye sàkku ci moom ñaan ngir mission bi yàlla oyofal ko yàlla defal ko ci ndam. nee na aussi bi mu ñëwee bëgg na lool ndax dalal gi ko dalal ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa jox ndigal njabootam euh, sëñ Chouaïb Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Diatara mi nga xam ne moo yor daare Kamil ak suñu jëmm ju ñàkk solo ji ngir ñu dalal leen waaye nee na bi mu fi duggee ba tey daal li mu fi gis lépp sedd na xolam ndax dalal nañ ko ci kër Sëriñ Tuubaa gi dal bu rafet a rafet te lislaame ba mu fa jógee dem na ziare jumaa ji ba mu fa jógee it am na chance su ziare bërëbu sëñ mag bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ba mu fa dem na daare gis na fa lu ko yéem lool ba fas yéene na coopéré ak daare Kamil ci di leen wutal ay téere di leen ko jox ak di leen mam di leen invité ci réewum Algérie ñu échanger te ak réewum Algérie ci wàllu culture. nee na aussi dem na daara Hizbut dalal nañ ko bernel nañ ko yaatal nañ ko fa yëg na fa aussi al karamul mouridi mooy taranga mouridisme bi mu fa jógee aussi dem na visiter ci euh, université bi yéem na ko lool te wax na léegi sëñ Mountakha ni ko dama am naa yéene bala maa génn Sénégal ma ñëw fii fekk université bi tàmbali liggéey wax na ko ni dina dugal loxoom ci li mu fi gis lépp ci wàllu formation imam yi maanaam jumaa ju mag ja ca Algérie ca dana fas yéene ànd ak waa xidma di ñu def ay échange culturel jël fi ay imam yóbbu na Algérie formé leen birum bourse aussi nee na dañ ci def ay yombal yu bëree bëri nee daal xolam sedd na xelam dal na ndax li mu fi gis lépp ndamul islam la li mu fi gis lépp lu yëkkati kanamu islam la luy taaral islam lu yëkkati islam lu yëkkati xam-xam bi it mi ngi ànd ak conseil culturel bi ak conseil diplomate bi ñëpp daal kontaan nañ nee na mi ngi sant Cheikh Mouhamadou Mountakha bu baax a baax a baax di bëgg lool ci visite gi mu ñëw fii ci ci ci ci.